sëriñ Abdoul Ahad Mbacke moom moo nekk ñetteelu xalifu sëriñ Touba ci diggante atum 1968 ak 1989 gane àdduna ci 1914 nekkoon nit koo xam ne dëggoon tax ba ñëpp daal di koy ràññee daal di def ay naan yu bëree bëri ci yoonu murit daal di def ay yu bëree bëri moom ci yoonu murit wéyal liggéey ñi ko jiitu woon li ko gënoon a ñor moo nekk taalibe yi daal di tegu ci yoonu murit yoonu njub ni ko sëriñ bi bëggee woon. soxna Mariama Jaxate bokk ak sëriñ Xamsatu Jaxate ñaari wayjur jur bokk it sëriñ fa soxna Fat Jaxate mi nga xam moy wayjur way jur sëriñ Saalix bokk lépp kon Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moy ñettelu khalifa sëriñ Touba euh tok ci 1968 ba ba 1989 kon Cheikh Abdoul Ahad gannaaw bi nga xamee ne Cheikh Mouhamadou Mustafa wutuna na sëriñ Touba ba wàccu liggéey Cheikh Mouhamadul Fadil ñëw wutu ko ci la ñëw yanu yan bi waaye lu jiit loolu bi mu feeñee jamono it ci gàttal waaye juram liggéey bi mu ñu liggéey teel nañu koo junj ndax ba mu feeñee jamono wax na ci wax ju rëy ne kii ne ko ñaan am naa ci moom yaakaar yaakaar nag moom la tegoon fa bakkanam teg ci daan wax ne saa yoo ma na may tas sama yaakaar dama rek yàlla dem wute ko kon toujours damay wax ne ndaw yëpp mën nañoo roy ci Sëriñ Abdou Lahad ndax bu fekkee ne woon ndaw lu ne sa yaakaar yi bàyyi sa mbakkan jëralul ko kon benn wayjur du am loo naqara ci sa doom ku nangu woon kilifteef la ndax bi xam nga Mouhamadou Moustapha nekkee xalifa bi Sëñ Tuubaa mboolem lu mu doon ne woon ci wayjuram da koo fab dem jébbal ko ko xam ne dafa amoon yéene liggéeyal Sëñ Tuubaa te fekk ko fi lu mu ko mën a liggéeyee la kon nag yaa fi Sëñ Tuubaa jox ko Baye Laat nekk koo xam ne bëggul woon benn ñaawteef ci dëkk bu sell bii di Touba Mbacke tax nag ba mu téléphone tuxum cigarette wàllu furut ak yenn jëfin yi bàyyi laat nekkoon koo xam ne ñëpp ràññee nañ ko ci solo yi nga xam ne moom la doon solo. nag ah yàlla def na jàng na ci xilaafa yi fi jiitu ndax dund na ci baayam tuuti ndax 1914 la feeñ jamono ba 1927 kon ba yaakaar naa fekk na ko a dëgër dëgër waaye jàng na ci xilaafa ak sëñ Mouhamadul jàng na ci xilaafa kon kooku du expérience bu baax a baax ci li muy def. moo tax def daal de wuuf njaboot gépp liggéeyal sëñ Tuubaa ci jëmmi boppam ji liggéeyal ko ci yoonam wi liggéeyal ko ci dëkk bi liggéeyal ko ci njaboot gi yooyu nga xam ne moom la sëñ Tuubaa waxoon ne euh, moom laa dénk yàlla juróom yooyu moom la sëñ Abdoul Ahad jël def ko mu di ab liggéeyam lenn lu nekk dolli na ko dooleel na ko ba lépp feeñ waaye li muy liggéeyal sëñ Tuubaa ci dëkkam bi rek doyoon na sëkk bi liggéey bu ci yemoon képp itam ndax dëkk bi ñuy wootee suñu ñu suñu mënu saa wootee suñu fàllu wootee ñëpp ñëw kenn ku ne da ngaa indaale la la nga nekkoon moom suñu Abdou Lahad bu ñu ñëwee nag moo leen wax lañ leen luñ leen fiy doyee bi leen suñ mënu saa di woo bi leen suñ fàllu di woo lan la leen fiy doyee moo ñu tàqale koog lu dul noona te sax ci li nga xam ne mooy noonu loolu tax mboolem lu ñu tere mu aaye ko ci dëkk bi teg ci bakkanam nit nag loo xamante ne bi euh, sa bakkan jërul ko rek loola ñoragul loo taxoon mu am ci ndam ci am ba ngi ko ci roy allah. mu lu di xaadim rasul bokk na ci résidence bi nga xam ci la dalal gani, yi gendarmerie bi mu taxawal ko fa gare routière bi ay nu raxmati naka noonu daaray kaamil li def ci dëkk ba nag kenn mënu koo xayma. bi mu ñëwee itam gi da kaw leen xamal yëpp kan mooy njabootu sëñ tubaa mboolem lu war ci mu mu mu ko. dajale leen xamal leen damaa bëgg ngeen wax ma li ngeen di soxla ren ba déwén ma ma gàddu loolu nag euh, néew na ci jamono lool ma wax ne it foofu royukaay la fi kenn ku ne kër ga nga jiite euh, ña la fa yàlla booleel boo roy suñu Abdul Ahad kenn du jooy dara moo tax suñu Abdul Ahad mbooleen njabootu suñu Tuubaa lu ñu mës a soxla rek moom da ko defoon muy aw sa sam borom belal nag ci xalifaam Tuubaa gin ci yaatu am hôpital daal di taxawal nag ab yar boo xam ne murit yi daal di ciy ko ba yenn ñaawteef yi bugg ko ca dëkk ba mu wuy ji borom mu fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin atum 1968 waaye ba léegi li nga xam ne moo nekk ay discours am mu ngi wéy di des ci noppi jullit yi ñu koy wéyee.